xerewlu leen bi isnillah ma tàmbalee ci bismillah te jéema way rijaalullah te abbi daaneb xarnu bi xerewlu leen bi isnillah ma tàmbalee ci bismillah te jéema way rijaalullah te abbi daaneb xarnu bi kon laa ilaha illallah muhammadu rasulullah man gumba guy lambutulaa ci yoon bi gën ci xarnu bi sayi ni e muridu la joni ni daru ndamala mori do ni khalilu la jambar ji sem al kharnu bi billahi nun muridu la warnan ne alhamdulillah nun wa do ni khalilu la sun bara da ne kharnu bi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ginnaaw bu ñu sante sunu borom subhanahu wa ta'ala ci mustafa sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna ahmadul khadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadoul Mountakha yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal gën a doole ak wéram waaye di am mbégte di toogaat ci jataayub sant yàlla ak fàttaliku ak jataayub eh, ñaan muy bis bii nga xam ne njabootug alhaaji njàpp saw baaxoo nañ di ko amal at mu jot ci ndigalul Serigne Abo Mouhamed xalifatu Cheikh Mahamadoul Mamoun yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jaar ci maam Omar Dia xalifa alhaaji Ibrahima ja ñëw nag ci seen sëriñ di sëriñ Abdul Xaadir ja ak mboolem njabootuk alaaj sëriñ ja gépp ñu toog fii ci këram nag fas yéene waajal bis boobu nga xam ne mi ngi am samedi fukki fan ak juróom ci weeru rakki gàmmu dëppoo ak le 19 octobre bis boobu nag ku ne xam ne ne baaxoo nañ di ko amal ca pikin ñu di ci amal nag jataayub alquran waaye conférence bu mag boo xam ne sëriñ Maam Mor xam sa diine baaxoo ne di ko amal at mu jot waaye ku ne xam ne ne bis bi jii dañ ciy fàttaliku taalibe boo xam ne mook alhaaji njàpp saw ñoo baax àndoo woon di liggéeyal alhaaji ibrahima ja ci keppaaruk sëriñ alhaaji sëriñ ja di sëriñ sàmba waaj te mu dem àjjana yàlla na ko sun borom teeru waaye nag ñu di ko ñu darajaale bis bi nag sëriñ amdi moustapha moom cheikh mahamadul mamoun moom soxna may moom sëriñ tubaa xaadimu rasul loolu moo tax ñu toog ci kër gi fas yéene yëkkati kàddu yi jox ko sëriñ Mame Balla Gueye ni mu ko baaxoo amalee at mu jot su noppee ñu jox sëriñ Asmor Dia su noppee danañ jox sëriñ Amdi Diop mi nga xam ne mooy wax ci turu Cheikh Abdoul Khadir su noppee ñu jox Serigne Ousmane Diaw Ousmane Sow miy wax ci turu sëriñ sàmba ak rakkam yëpp su noppee nag Serigne Abdoul Khadir dana tëj jotaay bi incha allahu rabbi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew ci ndigal ak Cheikh Abdoul Khadir ja xalifa alhaji Serigne jëm toog fii kàddu yi ñuy yëkkati ci ndigalam lañ koy waxee. itam ko sant suñu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan Cheikh Mahamad Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te doole ko wér noonu la ñuy ñaanale sëñ Abu Muhammad xalifa sëñ Muhammad Maamun yàlla doole ko wér ko fi lool moo njaboot sëñ Muhammad Maamun gépp ak njaboot maam Cheikh Anta bis bi day dafa dogal na ko suñ Fallou Gass si rek bisab cant la ak ñaan boo xam ne bii bay àllaaj njàpp saw ci nekkam moo ko amaloon daa ci ñaal sëriñam ba ba magam ja àllaaj sëriñ ja bi fi bàyyi koo tam ak njabootam ci ngiseel siñ sàmba ak soxna Faati Galo ak seeni rakk ñu teg ko ci loxol usmaan saw ñu ànd di ko doxal at mu jot nag mu yokk noonu lañ noonu mu yokkoo nag ni lañ ciy fàttalee mboolem ñi ko seqal di ko tàmbalee ci jànkati alxuraan yi ndax kenn ku ne xam na ne alaaj sëriñ moom lu ko lépp lu ko waay defal boo ci gisee alxuraan rek ma nga ci am ngërëmam waaye yàlla dafa dogal ki ko tuddee tey dara jaaree kooku mooy. suñu am nu Mouhamed Moustapha Mbacke moom si suñu Mouhamed Mamoun ak soxna May moom itam diggante ba alaaj sëriñ eh, eh, dafa sori woon lool kenn ku ne xam na ko ci bëgg am xam-xam ak bëgg ak am xam-xam ak taxawu ko jàng ki nga xam ne mooy bay alaaj njàpp itam yàlla dafa dogal njabootam gépp la muy dëgg dëgg dëkk-dëkk biir Dakar amul ci kenn ku mu dugal tubaab ñëpp alxuraan la leen jàngal lu ci waaye mën a xam alxuraan ba si dinañ ko jàng waaye la mu dëkk-dëkk mës a bëgg ay tubaab njabootam gi noo leen ko royee kon nag ah, xaalimu xaal mi nga xam ne yàlla dogal na mooy mbooyam daara yi ci senegal yëpp mi ngi nii teew ñu ngi koy waxaale ci turam mu ngi soññ mboolem seen daara yi ñu ko daa àndal bàyyiwuñ kenn suñ Ousmane ci ndigal suñu Abdou bépp seen daara foo may nekk sa daara ñu ngi lay yalwaan di sàkku ci yow nga jàng ay kaamil te yéene ko ñi nga xam ne ñoo Cheikh Xabis bi ak mboolem jullit yi alaaji Sëriñ Ja yéene ko Cheikh Amadou Moustapha mi ko tuddee dara jaay ko ko yéene ko alaaji sa njàpp saw ak suñu sàmbawaaj mi nga xam ne moom tam moom dafa bàyyi ko ak bokkoon ci liggéey bi ñu ngi daal woo ñëpp bis bi nag dafa doon bis boo xam ne yaakaar naa ne Ousmane ak waa kër Alaaji Baye Alaaji bis bu ko gën a kawe kawe si ñoom amut képp koo xam ne kii yaa ngi leen ci jàppale ak noo ci mën a jàppee rek duñ la yemaleeg ka ci jàppul kon ñu ñaan yàlla may ñu àgg si ak jàmm te defal ñu ci tawfiix ñu day ngërëma sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziare te di leen baal àq di ñaan yàlla na suñu borom mboolu ñu baal defal lu koy suñu njort di jël nuyoo bi di ko sof ci loxo nuyoo kilifa yi nga xam ne ñoo jiitu rek di soññee bu baax ci bis bi nga xam ne xam nañ ne fàttewuñ ko sax ndax mooy fukki fan ak juróom ci rakki gàmmu bis bi nga xam ne moom la fi alaaji sëriñ jóge woon sëriñ Abdou ja jël ko jox ko sunu waajur muy bàyyi alaaji njàpp saw mu def kook moom ñeenti at boobaak léegi nag bi mu fi jóge léegi ci kilifteefu sëriñ sàmba Sow mi nga xam ne mooy xalifaam ak njaboot gépp ñu ànd ak di ko defandoog moom ba mu toll ci fukki at ak juróom-ñeent ci ren bi mu fi jóge ak léegi kon bis boobu nag moom la ñuy fàttalu rek mu war tomb le 19 octobre ci pikin ndax bis boo xamee ne moom jëlee nañ ko Daaru Salaam indi ko Pikine moom xam nga bis boobu loolu kóllëre ak loo xam ne kawe na njort lool Baye Alaaji na daan wax naan bis mu ne nañuy fàttaliku di ñaan suñu Abdou Khadre ko joxoon bis bi ndax di bis boo moom bëggoon na ko lool bu suñu Abdou Khadre joxee daal amatul leneen lu mu ko desal kon ñun njabootu Baye Alaaji yëpp daal ñi ngi ñaan suñu borom ci barke Alaaji Sëriñ yàlla yàlla indi ñëpp delluwaat ñëpp jàmm salaam bis bii nag mooy bis bi nga xam ne moom lañ am amuñu leneen lu lool ndax Alaaji Sëriñ ku ne xamoon na diggante ak Baye te bàyyi alaaji it sunu borom da ko cee defaloon tawféex ndax dana wax naan bugguma ëwma bis sama bisu bopp bis bi mu am rek mooy bisu alaaji sëriñ bi bi nga xam ne moom bàyyi alaaji dafa dafa wàcc liggéey ci al alxamis euh, ci altine talaata àllarba alxamis nekk bisu alaaji sëriñ mu boole màggal ak bisum ñaan ga kon loolu kawe na jot bis bi nga xam ne mooy bisu màggal alaaji sëriñ bis boobu mooy bis bi nga xam ci lañ ko doon ñaanal kon loolu bis boobu day lu jafe lool te ku ko sunu borom jagleel nag kon xam nga ne am nga jagle sunu borom kon daal ci turu sàmm ak aji faatu saw yaa faatu Atlanta ak njabootu Baye Alaaj képp ñi ngi ñaan ñaanal ñëpp ñëw ci jàmm salaam delluwaat ñëpp jàmm salaam di ci fàttaliku waale sunu waajuru Baye Demba Saw ak njabootam Baye mataar Saw ak Mbathia Thiaroy di taalibe Alaaji Sëriñ Ja ku ne xam na ko diggante mu Alaaji Sëriñ Ja ak Sëriñ Mbay Saw ca Wakaam ak bàjjen Assu Alaaji Demba Saw ci njaareem kon ñi ngi ñaan sunu borom indi ñëpp jàmm salaam delluwaat ñëpp jàmm salaam ci barke sëñ Abdou Khadir jërë ngeen jëf. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalib yi fi teew yëpp. ñi ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Abou Mbacké mi nga xam ne mooy xalifab sëñ waaye nag di kilifa kër soxna may gépp itam di leen nuyu ci turu Cheikh Abdou mi nga xam ne mooy jëwriñu kër Cheikh Amdi Moustapha mu ànd ak mbooleem njabootug sëñ Amdi Moustapha gépp ak mboolem taalib yi nga xam ne Cheikh Amadou Moustapha mooy seen jëwrin di seen bunt ci sëriñ bi mu yawal nu fii nag ci bis bi nga xam ne mooy bisub cant ak ñaan ñu di ko defal alaaji sëriñ ja te ab taalibeem bu ñuy wax alaaji njàpp sow doon ko ko defal def ko nag at yu yàgg ci teewaayub sëñ am di ñu daan ko seq seq goo xam ne ci seen diggante la woon Cheikh Abdou nag nee bu fi yónnee ku fi teew da koy def ngir ngeen yëg di bis bi lu yëg la waaye ñi fi teew ñëpp ay ndawam lañ ci bis yu mel nii di ko tàmbalee ci Baye Abdou Khadir mi ak sëñ Fallou Gras sëñ asak ba ci màmbal mi kenn ku ne xam na ne bis bu mel nii bu ko masaan am ñoom ñii kum ci gis rek doy nga ko fa ndaw waaye bis bi nag day bis boo xam ne ni day bisam ci ay yoon yu bari ndax lépp loo xam ne daa aju ci kër Alaaji Ibrahima Dia loolu ñeel na njabootu sëñ Kaawan gépp te mu bokk ci njabootu sëñ gaawaan waaye nag diggante alaaji sëriñ ak sëñ am di itam ku xam seen diggante xam nga ne amoon nañ diggante boo xam ne bu ñuy defal alaaji sëñ ja dara tudde ci sëñ am di delloo nañ buum ca booy booy ba diggante alaaji njàpp saw ak sëñ am ku ko xam bu alaaji njàpp saw defal alaaji sëriñ ja dara ñu tudd ci sëñ am di ku ko dégg xam ne delloo nañ buum ca booy booy ba delloo buum ca booy booy ba nag du lu neex ku ñeme doo nga koy def ndax dañuy wax ne yeew fi barab ba mu booy ngay la nga yeew di bëri bëri mu yàgg nga ne daal lii daal naa ko delloo fa mu newoon mu ne tekk loolu mooy lii euh, xam ne suñ am di am na ci cër te bokk na ci te mbaa moo ko moom moom ngeen def ba delloo ko bi sëñ Abdou nee na sant na bu baax te gërëm na euh, ndax euh, da ngeen a ci sëñ Modou Mamoun rek mbaa ngeen ci sëñ Gaawaan ndax sëñ Modou Mamoun sëñ Gaawaan kat kenn la woon ci sëñ Touba joxoon na ko cër jox cër goo xam ne lépp lu bokk ci sëñ Touba yemaliwu ko nag dara sëñ Modou Mamoun tam foofee la ci njabootu Euh, Cheikh Amdi soxna may munatu loolu itam la waa kër alaaji Serigne Dieng ñi delloo si ci seen diggante ak am Amdi kon nag nee na bis bi képp koo xam ne yaa ngi koy woote nanga jàpp ne moom nga koy wooteel képp ku ci jàppit na nga xam ne yaa ngi moom yéen a ànd jàpp gi bég na ci te sant na ci bu baax mi ngi ciy soññee itam nag bu baax képp koo xam ne ni rek dara nga doon ci am Amdi yaa xam taalibe nga mbaa ngay wëlëre mbaa nga bokk ci njabootam na nga xam ne bis bi ci bis yi mu gën a fonk la bokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu ñëpp xanaa kàddu yi moom kàddu yi sant dañuy sant rek waaw di ñaan di sant yàlla bu baax a baax nga xam ne moonu may ñu toog nii ñu ko toogee ni ñu toogawoon ko ni daaw yàlla ñu ko toogewaat nii déwén itam waaw di sant nag baax a baax a baax mboolem ñi fi teew sant leen gërëm ah di ne nag dañoo am xew-xew boo xam ne muy suñu alaaji Ibrahima Dia suñu mor Madina bàyyi ko fi démb kon nañ ko ñëpp ñaanal yàlla suñu boroom yërëm ko te yëggal ko waaw suba la ñaan gi sax waaw waaw Amor Mbacke ak suñ Moustapha ak suñu Abdoulaye Sarr ñooñu ñëpp ñu leen di soññi ci ci ci liggéey bi waaw nga xam ne ni ñu waxee léegi mooy bis bi fi alaj sëriñ jóge woon Ousmane wax ko léegi ni nga xam ne ni la ni la dëpp mbiram dëppoog mbiram alaji alaji ay njàpp saw ndax laaj ñëpp sa laaj suñu doon wax naan sa mag laa moo ma doon sama mag doon sama sëriñ di sama xarit fu mu demaat ci Ndakaaru fu moom lay wàcc kon nag bis bu dëgmal si na ñun ñaan rek yàlla nañ ci àgg ak jàmm te lépp lu ñu ci yëngut lu ñu ci def yàlla na suñu borom nangu ko nangu jëf rek moo am solo yàlla nañ nangu lépp suñu fàllu galas yooyu ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax taxawaay bi yàgg nga ko taxawee am na jot ni nga koy taxawe taxawin bu rafet rafet ñu ngi sant suñu Balla ak suñu maam xaadimul Quran ci alxuraan ji nga xam ne ni ko suñu asmoor waxee mooy coordinateur mboolem daa yi ci réew mi nga xam ne lu xew rek événement bu xew bu mag bu ne rek dana fexe bañ jàng fa kamil yu baree baree baree bare bëri kon ñu lay sant la ñaanal yàlla suñu borom doon la wér te nga yàgg fi lool waaw di sant suñu Basiru Saaxa imam mi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp yàlla ñu àgg ci bis ba ak jàmm te luñ ci def rek ñu nangul ñu nangu ko rek ñu ko nangoo mbooleem Alaaji Ibrahima Ndiaye ak njabootam ak taalibe ak ñu fa ñu daw koy dawlu yëpp kaamil yi ñu fi wàcce ak ñaan yi ñu fi def yàlla na leen suñu borom yomb na ko mu mu jotal ci ñëpp a ñëpp waaw mujj na ci diggante sëñ Amdi ak Alaaji Sëriñ ni ko sëñ di Jóob waxee léegi seen diggante ñoom ñaar baatin la woon baatin la woon ba xam ñoom ñaar rek ñoo xamal seen diggante ndax Alaaji Sëriñ àggoon na ci sax ne bu ma fi bàyyi ko bala ma na ma sëñ Amdi tiim bala ñoo def dara ci man na ma sëñ Amdi tiim tiim kon loolu loolu wax dëgg yàlla ak doy la mu mënu ko woon weesu ak yeneen yeneen yoo xam mënu su ko wax sax ci ci ci ci rajo kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu